Heavyweights.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 yoon woowee dafa lànk ne du wuyu ji ndax dañoo salfaane ay àq ak yelleefam ci ni ñu yëkkatee mbalaanu kiiraayam daal di def sorti gis ne ngu gis ne ñii dañu ko bëgg a faagaagal waaye bii yoon nag bu loolu naree am seeni loxoy taq rip ak waaye nag du yombee noonu ay waay yooyu naa def ay gannaaw kàddu Ousmane Sonko yooyu am ñu jog dox ci ay tànku jàmm ay kilifa diine société civile ba ci ay am politique ba kii di Ousmane Sonko nangu ne dana wuyu ji waaw waaw loolu nag moo gën waaye nag kii di aji sar moom ñay dox tànku jàmm dañ leen a ne duñ ko gis waay waay doy na war àllarba ñetti fan ci weeru mars Ousmane Sonko génn këram jëm section de recherche partisans ak sympathisants daal di koy gunge ji naka noonu bu ñu demee ba ci yoon bi way takk der yi intercepté ko préfet Dakar daal di joxe ndigal nee na changer itinéraire mu ne naka noonu Ousmane Sonko lank ba tëdd ci naaj bi ndax dafa bokk ci ay àq ak yelleefam kenn du ko sàkkal fi muy jaar te muy dëgg gannaaw ay waxtu négociation yu mujjul sotti ci la ñu bi préfet Dakar daal di joxe ndigal ne ñu chargé ci kaw manifestant yi ak taskatu xabaar yi ci la yëf yu mujj dégénéré lacrymo yi dal di tàkk ñu teg ci tuut ñu arrêté Ousmane Sonko ci wàllum trouble à l'ordre public nga ni ma ak woote def manifestation bi nga xam ni yoon daf ko gàntal cay mim réew naka noonu ñu arrêté garde corps ci la dégâts yi tàmbale Dakar mujj tàng jëpp gone yi dal di wàcc ci mbedd mi taal toj rajaxe Auchan yeeg Cascorage yi ba ci station Total guérilla urbaine dëgg xale yi saccagé ba saccagé ay tribunaux bàyyiwuñu poste police ba ci brigade gendarmerie fitna baaxul naka noonu it ci mbeddi Dakar yi ñu gis ay nervi ay ponkol yu gàddu ay yattaki mbolde di seme ci mbeddi Ndakaaru yi jàpp manifestant yi di bastonné ko dóor hmm, fitna baaxul réew mi mel ni ku nekk ci guerre civile jële yëf yi dal di lawee ba laal yu bari fépp xale yi wàcc ci mbedd mi toj taal rajaxe yëf yi mujjee ëpp tuuru bàyyi blessé am ay bakka nit mujj cee tëdd ay ilaha ay nit yu ñu door fetal ñu daanu laa wax ba mujj ñàkk seen bakkan ilaha illallah réew mi dugg ci guddi gu bët sa tegul ñépp nag tiit di laaj njiitu réew mi génn wax dalal réew mi booba gone yaa nga ca mbedd mi réew mi continué di jaax bakkan yi wey di tëdd la ilaha illallah naka noonu juge d'instruction mujj yot dossier bi la doyen des di Samba Sall réew mi nekk ci tension nit ñi di xaar ku wàccee ministre de l'intérieur daal di génn yokk ci xar mi kawar taxe xale yi doon manifester ne ay terroriste lañ ab conspiration bu ay force occulte lal moo am ci réew mi ngir bëgg ko normel ay déet waay déet waay kàddu yëpp na naka noonu it maître Aïssata Tall Sall tëggal lu ni mel ci noonu kilifa diine yi gis ne lii buñ ko seetaanee réew mi mën naa dugg ci guuta dal ba yebal ab délégation ñu dem seeti njiitu réew mi hmm, waaw waaw waaw moo gën na gannaaw ba ñu gisee ak moom ci la ñu genn def déclaration nit ñëpp amaat nekk ne jàmm dana dellu si waat ci réew mi ci guddi gi yenn garde corps ya ñu tegoon loxo ñu daal leen bàyyi xel tàmbalee dal bi ñu xëyee ci suba gannaaw ba juge Samba Sall déglu Ousmane Sonko ci la ko libéré ñu placé ko sous contrôle judiciaire waay waay nag looloo gën xale yi génn jubale ak moom si kër góor gi climat d'apaisement bi ñëpp doon xaar tàmbalee dellu si waay waay jàmm gën lu dul jàmm naka noonu ci ngoon si Ousmane Sonko génn def déclaration dal di teg ay revendication am nistuut président de la république gën def discours dal di woote jàmm ak dal waay waay waay nag moo gën teg ci nag yokku ne ndaw ñi doon manifeste dégg naa seen message te danaa ci taxaw waaw waaw waaw looloo gën nag ndax li xew moom du lenn lu dul ñu décrypter message bi te jëm koo jëfee moo tax maa ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graaw corona la wax F Njaay mii nag li mu def ëpp na ndax dafa jur doom ba noppi dal koy faat yab ko ci valise yàlla mbir mi ñu ko doon atte ci chambre criminelle ba yoon mujj ko daan juróomi ati kaso def njaay moomu nag nee nañu wilaas la jóge woon ñëw ci ndakaaru bi muy am 19 ans ci la fi bëggante ak benn waay ñoom ñaar ñu mujj ànd xale dañoo teel a dugg ci bëggante ci noonu nag bi mu ëmbee dal di koy jiiñ waa ji waa ji lànk ba tëdd ci naaj bi <laughs> lu rek la def de ci leef njaay décidé ne bis bu doom ji juddoo dana ko faat ndax kooku gàcce moom du moom mooy nekkaale ak moom hmm, waay waay yi ki yabaate ba mu neex la nan du ko yore naka noonu nag beef njaay di matu ci la yéeg ci ab terrasse gannaaw bu ma amee doom ba noppi dal di xoj xale bi ba xale bi faatu mu lëmas ko ci tisi jël neewu xale bi dal di koy dugal ci ab walis <laughs> waay waay ki yow wow xol <laughs> réew mi nag léegi nii la dangay foy ba mu neex la nga jur doom ne da koy faat ndax daw gàcc te ba nga koy def mu neex non réew mi li fi am kenn mënul wax la la mu doonoon seen xibaaru buzz dig daje samedi ci yeneen xibaaru buzz